asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci li nga xamante ne mooy seen chronique bi nga xamante ne ñu ngi leen koy defal ci sunu kër FM fii nga xamante ni mooy Californie ci dëkk bi nga xamante ne ñoom moom la ñuy wax Los Angeles. Euh, di leen wax ne nag xam ngeen ni nag euh, jóge nañ ci li nga xamante ni mooy bisu Serigne Touba bu rëy bi muy le 18 safar. Euh, dimanche bi nga xamante ni moom moo jiitu woon loolu defaloon nañ leen un peu taarixu l'islam bi taarixu taarixu 18 safar bi ci angle bi nga xamante ne ñun moom lañ ko gise woon muy daal defal leen taarixu 18 safar bi mooy finalement defal leen li nga xamante ne rek mooy taarixu l'islam jële leen noonu l'islam fi nga xamante ne fi la jógee mohammed sallallahu taala wa sallam gën gi mbinde ba fi jógee ba nga xamante ne les xalif rachidun ñëwoon nañu ba l'islam fi mu jaar ba tey ji dugg ci loxo ñi nga xamante ne ñooy la famille saoud ak les wahhabistes waxoon naa leen ko ba waxoon di leen sax Arabie saoudite xam ngeen ni famille saoud bi ñoo koy jiite waaye les wahhabistes ñoo yore li nga xamante ne mooy mesure ñooy ministère de l'intérieur ministère bi nga xamante ne moo yor kaaraange réew mi mel ne ginnaaw bi nga xamante ne dàq nañu ñi nga xamante ne ñooy sëtati yonent bi sallallahu taala wa sallam ñoom li ñu instauré mooy ñoom donc wahabiste yi loolu lañ leen jox ministère de l' intérieur ministère bi yore sécurité réew mi donc nag di leen wax ne yooyu yëpp waxoon nañ leen ko waaye aussi di leen wax ne li taxoon ñu indi leen loolu dañ leen doon indil ci jamono li nga xamante ne 1922 bi nga xamante ne l'imam El Kourdi de de de Médine fi nga xamante ni yonent bi sallallahu taala wa sallam euh, fa la tëdd ñuy def seen délégation ñëw Diourbel en 1922 seeti Serigne Touba pour mu ñaanal leen ci jafeñ-jafeñ yooyu nga xamante ne doon nañ ko xalaat am ko ak ñi nga xamante ni ñooy wahabiste di leen wax ne nag aussi. dama ne leen woon aussi li nga xamante ne rek mooy taarixu 18 safar bi dañ ko jëlee rek ci ñi nga xamante ne ñëpp ay nit ñu baax lañu woon di ay nitu lislaam ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci réew mi jël seeni arm di jàmmaarloo ak tubaab bi ak ni ñu mujjee waxoon leen moom Mamadou Lamine Dramé daal le Bundu ak doomam ji bu Dramé wax leen ni nga xamante ne noonu lañ ko reyee waaye aussi waxoon leen aussi Fodé Kaba ya nga xamante ne niñ ko reyee rey ko ba nga xamante ni ba tey bi daanaka gisuñu koor bi xamuñu fan lañ ko yóbbu anglais yi dañu ànd ak français yi dugg foofu nga xamante ni fi la nekkoon Fodé Kaba Doumbouya taal ko donc nag di leen wax ne aussi noonu la ñu wàcc liggéey waaye aussi ñëw doon ci ñi nga xamante ne ñoo yoroon la révolution torodo muy Thierno Souleymane Baal ak Abdelkader Kan ñoom ñëpp wax na leen ak nu mu mën a mujje ñoom ñëpp dañ leen a faat dañoo mujj a waaye di leen wax ni aussi ñi nga xamante ne mooy Ahmadou Cheikhou Ba bi nga xamante ni moo defoon la fameuse bataille de Samba Sadio xam ngeen ni mu mujjee dañ ko mujj a faat en 1875 ci coalition bi amoon entre Lat Dior Alboury Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñooy tubaab wax leen aussi Lat Dior itam dañ ko mujj a faat xam ngeen niñ ko faate en 1886 à Dexale waaye wax na leen Alboury Ndiaye aussi avant muy dem exil bi fii au Niger man dem naa ba tiim bàmmeelam ba ñaanal ko ci jàkka jooju mu nekk à Dosso avant muy dem dajale ak Serigne Touba ak ko Serigne Touba waxoon ni ko na toog yooyu yëpp nañ ñu guddal liste bi fi nga xamanteni mom moy Sénégal mais aussi goudal liste bi fi nga xamanteni mom moy Afrique bo demee réew yu mel ne Béhanzin au Bénin même su féké Béhanzin du woon jullit ñu koy wax Bécazin ndax nimu mu xarañe ci li nga xamanteni moy mooy wudu ak ni mu xarañe ci li nga xamanteni moy fétiche tuba bi dañ ko mujj déporter ba xam ngeen ni biñ ko yobbo Algérie la euh, Algérie bi muy ñibbisi bi mu ñëwee ba Bordeaux en France la fatou donc ak ñeneen ak ñeneen Samourou Touré fi nga xamanteni fi lañ ko yobbo won Eline Jolé ñukoy wax il Jolie découvert par Sagornia de Brazza nga xamante ni moom mujj àddinaam Serigne Touba la ko jox donc nag yooyu yëpp mënoon nañ koo yaatal waaye doon leen wax ni loolu lépp boo déggee boo gisee ñu koy wax dañuy wax sëriñ bi changement yi nga xamante ni moom la indi ci l'islam bi waaye aussi changement yi nga xamante ni moom la indi ci société sénégalaise bi ci résistance boo xamante ne lépp daf ko def ci jihaatu nafsi doon koo xamante ne référence la woon ci lépp doon leen wax ne nag booba xam ngeen ni diine l'islam yi daanaka nee naa leen ci Sénégal li ci gën a bari ñaari ñaari kuréel ñoo ko yoroon muy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax les alpulaaren ñuy les torodo ak ñi nga xamante ne ñooy euh, ñooy wolof yi ñu leen di wax doomu soxna yi donc loolu xamante ne mooy l'islam bi noonu lañ ko organiser the Serigne Touba nak indi une résistance bo xamante résistance jiyaatu nafsi Serigne Touba indi changement and I ci société bi aussi Serigne Touba indi li nga moy renouvellement li nga islam loolu nak mom mo dérangé woon Touba bi wax na len ko loolu nga ne de en conflit wala ñuy the muy ñaari projet de société nga ni pour noor suñu mentalité la colonisation des mentalités loolu murid yi nangu wuñ ko woon loolu nga xamante donc moo indi li nga xamante moy 18 safar bi nga xamante ñukoy fété nak fété ko ci condition yo xamante ni nee xam ngeen ko condition yo xamante xawna metti ndax coronavirus bi waye lepp murid yi def ko sante def li nga xamante moy jihadu nafsi jël sen bakkan bi jaayante ko ak Serigne Touba mi nga xamante moy jara jaayanteel mom mi nga xamante rek képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi alayhi salaam yoreel na ko li nga xamante ne mooy njëkkal ndax li nga xamante ne moom la doon indi fii mooy renouvellement l'islam te l'islam du pour murid yi du pour tijaan yi du pour ñenn waaye pour àddina bi yépp la donc Serigne Touba dem gi nga xamante ni moom la demaloon géej daf ko demoon ñi nga xamante ne pour sénégalais yépp la waaye neewoon naa leen aussi ci li nga xamante ne moom lañ doon waxtaan muy liggéey ak xidma dinaa leen indil jenn jëmm joo xamante ne ci njaboot Serigne Touba la surtout ci contexte bi nga xamante ne wax ji bari na ci contexte bi nga xamante ni taalibe yi ak ci ñi ma ko sañ wax dañoo war a delluwaat dellu ci repéru Serigne Touba yi ak ñi nga xamante ne ak njabootam lañu ak cheikh yi nga xamante ne Serigne Touba formé na leen modèle leen def leen ay modèle yoo xamante ne chaque fois dañu war a doon suñu seetu yi nga xamante ne ci la ñuy xool ci ñoom moo tax ma indi leen tey jii waxoon naa leen ko soxna Muslimatu Mbàkke ibnu Xaadimu Rasul moom mi nga xamante ne mi ngi juddu le 23 décembre 1918 fi nga xamante ne mooy Daaru Alimul Kabir koy wax ndaam nga xamante ni sëñ Touba moom la rafaataloon sëñ Daam Abdourahmane Lo keroog bi mu ganee àddina nag doomu doomu soxna si nga xamante ne mooy Faati Tuuti Diop te moom ak Cheikh Moutada Mbacké ambassadeur l'islam ñoo bokk waajur wu jigéen soxna Faati Tuuti Diop donc nag keroog xam ngeen ne bi ñu xabaaree sëñ bi sëñ bi nee na leen soxna Faati Tuuti lu mu am gan mu am ñu ne ko ak jigéen la sëñ Tuubaa ne sedd ko li nga xamante ne mooy sër mooy cëru cëru góor cëru góor lañ ko sedde loolu moo tax dund soxna muslimati mbàkke ibnu xaadimu rasul boobu doon exemple pour soxna yëpp waaye doon exemple pour murit yëpp ci ni nga xamante ni noonu la nangoo woon a liggéey waaye aussi ci ni nga xamante ni noonu la feesoon dell ak ci xam-xam ak ci ay ba ay doon koo xamante ni c'est une femme modèle une femme boo xamante ni doon na modèle ci société sénégalaise bi yëpp moo tax tey ji ñu indi leen soxna muslimatu mbàkke donc nag bi mu waree nga xamante ni toll na ci jàng Serigne Touba dafa wax ne nañ ko jox sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ko ba mu bind kaamil mu ñu yóbbu ko ci ki nga 都没有。 sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu da jàngal ko li nga xamante ne mooy xam-xam donc mu fees dell nga xamante ni doomu Serigne Touba yi jigéen yi nga xamante ne bu ñu daan bu ñu daan bu ñu daan bind kaamil ba ba kaamil bi yegg bu ñu koy indi di ko présenter Cheikh Mouhamadul Moustapha wala ku mu man di doon rek bu ñu koy indi dañ koy boole ak ay ñam waree ni ñoom sont femme la ñuy jigéen ñoo xamante ni mën nañu liggéeyu jigéen ba pare li nga xamante ne yàlla santaane ko ci l'islam aussi mën na ko parce que bind nañu kaamil donc soxna Muslimati xamante ne nag ci aspect économique euh, damay wax ne euh, moy jigen gi nga xamanteni en 1962 bi Sénégal amé indépendance deux ans après moy la première femme au Sénégal bi nga xamanteni jox nañ ko médaille ordre national du mérite Senghor jox ko ordre national du mérite lu tax xam ngeen ni soxna Muslimatu déjà bi mu ràññee rek dafa dugg li nga xamanteni moy ci activité économique yi doon ko xamanteni c'est la première femme en 1952 mo jëkk a produire 30 tonnes gerte nga xamanteni yoy c'était des records mais aussi mooy jigéen ji nga xamante ne aussi 1960 bi nga xamanteni Sénégal mi ngi jël indépendance après l'éclatement de la fédération du Mali nga xamanteni lepp li nga xamanteni ay napkin la mom lañu lalal gan yi nga xamanteni mo ñëwoon pour célébrer l'indépendance du Sénégal le 20 août 1960 parce que première indépendance ñu nous ko célébrer woon le 20 août 1960 napkin yooyu yëpp soxna ci mo def design bi waye moko défar li nga xamanteni Sénégal fa la jëlé commande donc gan gu ñëw ci li nga xamanteni moy fête indépendance le 4 avril le 20 août 1960 lepp soxna si moom moo napkin yi ñu lalal gan yëpp soxna si moo ko créé mais aussi moo ko produire soxna si aussi moo jëkk a créé li nga xamante ni une usine industrie fii nga xamante ne mooy Touba muy industrie boo xamante ne day defar cere ñu koy wax cere Touba nga xamante ne dans les années 1960 ñi dem mak ñëpp bu ñuy dem ba bi ñew ciéré yi soxna muslimati Mbàkke defar moom la ñuy mais aussi gendarmerie nationale dans les années 60 lepp lo xamante dañ koy xewloo muy ci ciéré soxna muslimati Mbàkke moo ko doon def donc d'une une femme opératrice économique di femme bo xamante aussi démon na ba activités yi développer ba le gouvernement allemand ñew seet ko fi nga xamante mom moy Touba ci réñu ci nga xamante bi Cheikh Mouhamed El Fadel Mbàkke nekkee ñew seet ko tok Touba lu mat juróom-ñetti fan suivre ko ba décider ni dinañ cofinancé ko à hauteur de 300 millions ci jamono jooju nga xamanteni donc soxna si limu mu doon def référence la waaye xam ngeen ni projet ba na mu moy les grands moulins de Dakar bi nga xamanteni nguru Senghor après dañ ko mujj détourné jox ko les Grands Moulins mais Grands Moulins projet original bi moy projet Soxna Muslimatu Mbàkke Soxna Muslimatu Mbàkke doonul woon simplement une active opératrice économique waaye di yëngatu ci wàllu koom waaye aussi noonu la baax won di def humanisme bo xamante bu yéemale woon ndax Cheikh Mourtala Mbàkke bu fekkee moy ambassadeur de l'islam Soxna Muslimatu Mbàkke da daan wër Sénégal dëkk bu mu dem buñ ko joxé adde yi koy dajalé ni leen nag dëkk bi est am na kenn koo xamante ni yor na ay bor yoo xamante ne mënu koo fay buñ ne ko waaw mu ni jël leen xaalis bi jox ko ko mu fay ay borom buñ ne am na kenn koo xamante ne bëggoon na fi soxna mais lañ koy laajte càng yoru ko ñu ne waaw mu ni jël leen ngeen jox na donc humanisme boobu la doon dawal foo xamante ni fa la dem te fépp fu mu boo ko gisee mi ngi kaamilu alxuraan wala xasaay du Serigne Touba yi moom la doon wéttali xam ngeen ni am na audience bu mu doon am ak Mamadou Dia fii nga xamante ni moom ọmọ ẹ̀ ndakaaru keroog bi mu ñëwee kaamilu alxuraanam la yor di ko jàng ci salle d'audience bi mel na ni keroog sax am na ñoo xamante ni euh, xiixoon nañ fa ak soxna si daan ko fii république laa di ko wax noonu ba soxna si aalu na fi mais loolu nañu jàpp ni sax ci guddi googu même coïncidence boo xamante ne bu assez intéressante la nga xamante ni guddi googu ñu amoon xiicoo boobu keroog soxna si bi muy keroog la ñu def le coup d'état arrêté Mamadou Dia donc nag di affaire yoo xamante ni soxna soo xamante ni modèle économique la soxna soo xamante ni modèle la ci mystique sëriñ soxna soo xamante ne aussi li sëriñ Tuubaa waxoon ne sédd nañ ko cëru góor xam ngeen ni bi mu ko Sëriñ Juba bàyyi tegtal yi dañoo Cheikh Mouhamadul Moustapha bu tolloo ci wàllu dugg sëy na ngeen ko jox ki nga xamante ni mooy euh, na ngeen ko jox ki nga xamante ni mooy euh, euh, sëriñ dañ ko jox sëñ sëñ ab ndaam abdourahman loo na ngeen ko ko jox ñu jox ko sëñ ndaam abdourahman loo mu am ci sëñ moustapha loo sëñ fàllu loo ak sëñ lamine loo nga xamante ni sëñ ndaam abdourahman loo bi mu wàccee liggéey en 1900

cëru goor la non seulement activité économique yi def ci développé mais aussi soxna Muslimatu Mbàkke dundam gi yépp amul benn doom bu jigéen ñi mu am yépp goor la té xam ngeen aussi seigne Moustapha lu ko won na ci c'était le grand conférencier du mouridisme nga xamante ni wër na à travers le Sénégal dem na fu nekk wane les merveilles de Cheikh Ahmadou Bamba loolu moo taxoon tey ñu indi leen ki nga xamante ni mooy soxna Muslimatu Mbàkke di jigéen joo xamante dafa fas woon ci ndigal waaye aussi di jigéen joo xamante Cheikh Mohamed El Fadel nee na ko bu fekkoon ni góor nga ñëpp ci yow la ñuy jébbalu Fallou Serigne Fallou kontaan na bég na ci moom ba summi daraam solal ko ko soxna muslimatu Mbacke Cheikh Mouhamed El Bachir waajur Cheikh Mouhamed El Cheikh Mountakha Mbacke mii ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te wér noonu la ko daan def naan ko mooy ràjje la tudd naan saa bu ma gisee jëmm ji jigéen laay gis waaye bu jëfee rek jëfe góor lay def waaye nag aussi xam ngeen ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim témoignage yooyu la amoon te soxna muslimatu Mbacke mu teel a wàcc liggéey sax pratiquement à l'âge de cinquante et un ans ci la wàcc liggéey hôpital principal ak merveille yi fa amoon bi mu demee ñu feebar ñu indi ko mu ni daal bu fekkee ne jigéen rek mooy daan sama docteur moom moo may laal waaye aussi beneen condition bi mu posé woon mooy bu fekkee ni dañ ko war a opérer nañ mu dem parce lu mu demee mu ko damaa bëggoon a dund benn fan bu plus moo condition yooyu ak hôpital ba ña ko fa tuddee ay doom te duñu ay sénégalais ndax naw bi mu nekkoon loolu mooy modèlu femme mouride yi te modèlu femme mouride yooyu mën nga ci cité yu baree bari xam ngeen ni Serigne Touba defoon na jawaawu soxna Penda Diop muy loo xamante ne aussi lettre la adressée à toutes les femmes du monde mais aussi à toutes les femmes mourides ci attitude bi seen relation ak seen jëkkër waaye digg attitude bi nga xamante ne moom la ñu am seen diggante ak seen diine l'islam ji fonk ko muy diine joo xamante ne dafa rehaussé li nga xamante ne mooy statut wu jigéen ñi parce que boo demee dans le monde arabe nga xam ne jigéen ñi bu jëkk ay objet lañ leen considéré woon daawuñu leen takk dañ leen di bàyyi ñoom bu ñu juddoo dañ leen di faat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi une révolution indi jigéen ñi defal leen si li ñuy wax l'émancipation de la femme ci yoon boobu la Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon ba tey ñu indi leen soxna Muslimatu Mbàkke bi nga xamante ne modèle la woon ci jigéen ñi di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain di leen wax nag dinañu ñëw ci discours bu riche ba nga xamante ne sëñ Bass Abdou Khadre wax na ko ci turu Cheikh Mountakha Mbacké lépp di ay ngëneel dinañ leen tasal discours boobu jox ko nit ñi pour ñu comprendre li nga xamante ne mooy message yu dëgg-dëgg Cheikh Mountakha Mbacké bi nga xamante ni mooy message yu mbégte waaye message yu yéene bi muy jox jullit yëpp jërë ngeen jëf ba dimanche prochain incha allah.